bismillahi rahmaani barki borom Touba asalaamaaleykum mbokki jullit yëpp mbokki taal bi mbokki mujj fépp fu ñu mën a ci àdduna rawat nag fii ci dëkk bu tedd bi Touba xarasan la taala ñu fas yéene ñëw ak yéen ci yëgle ak fàttali bis yi nga xamante ni moom lañ fas yéene amal fii ci dëkk bu tedd bi ci euh, altine bi di le 15 juillet ba ci dimanche 22 juillet incha allah ñu tàmbalee ko ci euh, ñaareelu. altine bi nga xamante ni mooy ngontu Serigne Massamba Mbacke bi nga xam moom la amalee ci bërëb ba muy ñaareelu altine bu nekk ci weer wi incha allah bërëbu Serigne Massamba waaye nag kulli altine altine bu jot rek nañ ko amal fee ci bërëbu Serigne Fallou bi muy ngont ma faatul Bichri ànd ko sunu jëwriñ Serigne Youssou Ndour ma faatul Bichri waaye tamit dinañ amal ngontu Nour Daarin fee ca kër Serigne Saliou Mbacke ànd ko sunu jëwriñ Serigne Moustapha Mbeng moom it altine bu jot la ci ngontu Nour Daarin bu ko defee yooyu mooy altine yi talaata bi dinañ amal ngontu euh, sëriñ bu Mbacké ñaareelu talaata ci weer bu nekk incha allah ngontu euh, sëriñ Souhaïbou Mbacké àllarba dinañ ko amal ci àllarba bu jot rek bërëbu sëriñ Saliou Mbacké ànd ko suñu jëriñ suñu bay dem waaye àllarba bu jot ba ñaareelu àllarba bi dinañ ko amal fee ca daaru mën naan ngont daaru mën naan ànd ko ay Moustapha Dieng di maraaxib waaye àllarba it waa kuréel bu suñ ko mbëndoo 13 juin ñooy fàttali ni am nañ fa daje bu ñu war a amal ngir tàmbaliwaat liggéey bi mu jëm ci màggal gi ñuy jëm incha allah muy àllarba ci maanaam kër sëñ Tuubaa gi bu tàkku tàkkusaan jotee alxames bi moom la ñuy amal ngontu sëriñ Abdul Xaadir ci bërëb muy ñaareelu alxames bu jot incha allah rabbi te ci xaar ñëpp waaye ajjum bi tamit ku ne xam ne ni mooy ñaareelu ajjuma ñu suddee ko tuba xarsan la taala gontu tuba xarsan la taala ak sargal jambari tuba ñu japp ko ci aljuma bi moy ñaaral aljuma ci wër wi ak le 19 juillet inshallah samedi bi moy gontu maam cheikh ibrahim fall samedi bu jot rek ci bërëb ba inshallah allah rabbi waaye te dimanche bi moy dimanche soxna asugaan mbàkke ci kër ga dimanche bu jot rek momit inshallah waye dimanche ci bërëbu sëñ caali mbàkke ba nañ ba amal nur daani and ko ak bay nur juub ak wa kuréel nur daani gi maam di ci woo ñëpp yooyu mooy bis yi nga xamante ni jàpp nañ leen ci euh, semaine bi fas yéene leen euh, joxe ñu ñaan suñu borom defal tawfeex ak ndimbal ak ndam ak ngërëm Cheikh Khadim di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf